الرجيم لا توبوا لهن في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ۖ من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عظم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ولا تكتمونه تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض wallaahu alaa kulli shay'in qadiir inna fi xalqi samaawaati wal ardi واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك رحمتك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار الأنصار بارك الله فيك صدق الله العظيم بالله من الشيطان من la أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل إلا رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختفى آثارهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين ixwatal imaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asa turaasuna min kaabirin an kaabir. alqur'aan masdaru tasrii lil insaani almu'mini taqiyi naqiyi fi xayaati islaami kulliha aslan wa xukman. wa inna sariicatahu la kafiilatun bi sacaadati albasariya wa mimma rawahu an abi bakrin siddiq radiallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man uutiya alqur'ana fa ra'aha anna ahadan uutiya xayra mimma uutiya faqad saqara aziman wa azama saxiran walqur'anu issun lilalamina ilahi lilhuda ansalta fiina kitaaban fihi izzu lalamina walqur'anu lil arwaahi ruuxun yujaddiduha wa yamla'uha xaniina fa kaana li kulli si aqlin sabila wa kaana li kulli si ilmin muhiina wa nuwajjihu kalimata sukri wa duhaayi li aqina fillah asayidi al ustaas al imaam Mouhamad Diop afisahu llahu wa ayadahu wa ataala baqaahu bi kamaali sixati wal aafiya ka xawlil qaayil yaa qawmi inna lakum min irsi awwalikum majdan uaasiru an yafna wa yanqatia maa saa yaraddu aleykum izzu awwalikum indaha aaxiruhu aw salla wattadaa turaasu majdin li ahlil majdi walquraanu ahlullaahi wa qaasatuhu li misli asa falyamil amiluun gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant rek mbokk mi mu Mouhamad Diop yàlla na ko fi yàlla yàggal muy kàddu yu sant yoo xam ne mbokk yi ñoo nu ko jox waaye àll ñu tële ci lool di ñaan yàlla yàlla dëgëral taxawaayam ak mboole ñu mbokkal daara ji yàlla kàttanal ko ba liggéey bii mu sumb yàlla defal ko ca ndam lu ëpp lim ci yaakaar ak mboolem ñi mu ko ànd ak yàlla guddal fanam bi jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni alxuraan moo gën ci lépp luy waay di wax moo gën ci lépp lu ñuy dépensé alal kon nag yàlla jox kattan nan def ci lu mel nii ndax ba sebbi na fii tooba ko fi waay lu fi waay ji rek da nga am meññeent kon yàlla yàlla defal ko kàttanug biir def ko kàttanug wir guddal fanam dooleel kàttanam faj ay aajob ak mboolem ñu mbokkal daara ji ñëpp yàlla yàlla may ndam lu ko seen njort bi jaay seydina Muhammad sallallahu wasalaamu ala man tabal huda wasalaamu solo waaye nag temps bee ñoo ngi ñaan képp ku am kaddu rek 3 minutes la bu ko defee bu gàttee sax mu gën ñoo gënal yal na yàlla barkeel ñuy woo nga xamante ni mooy représentant ressortissant daara ji yal na yàlla fay leen te sàmm leen. iyatul islam wa hiya aleykum jamian wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam di leen sant ci teewaay bi tey jii nag mën nañoo wax ni ñun ñun ñun ñii ñoo yeyoo cant ndax tey jii da ñoo fekk si waaye ñu woote ngeen wisuñu kon ñun tey amuñu seen fay tey jii ñun ñi nga xam ni yàlla def na li ñooy shabaabun xawla al quraan tey jii ñun amuñu seen fay cant gi nag ñoo ko moome waaye kiñ koy jiital nag mooy suñu wayjur di suñu baay al imaam Khalifa Ibrahim Seck ndax ñun ñoo nekkoon ci daara ji fii tey suñu rakk ak suñu jarbaat yi ak suñu doom yi ñun ñoo fi ji kon cant googu nag tey ñun ñoo ko amee di ko cantal suñu rakk ak suñu jalwaat yii di ko jiital ci suñu wayjur woowu muy suñu wayjur al imam xalifa ibrahim Seck muy wàcc ci ci oustaz Mouhamadou di wàcc ci képp koo xam ni mu ngi liggéey ci daara ji cant googu nag ñun ndongo yi nga xam ni ñoo nekk ci daara ji ñoo ko ameel al imaam Khalifa Ibrahim Seck ci liggéey boo xam ni foo takk rafet ji rek weesu na ko xam ngeen ni daara ji am na ay taxaw de képp ku koo xam ni xam nga fañ commencé woon ak fii ñu egsi am na ay jéego kon daal ñu ngi sant suñu wayjur al imaam xalifa Ibrahima Seck ci ay taxawaayam mook oustaz seen temps bépp jël nañ ko def ko ci daara yéen suñu rakk yi nag amal nañ leen cant cant gi mooy lan seeni waajur dañ leen fee teg waaye ngeen nekk fi nekkin woo xam ne nekkin bu rafet la nekkin bu rafet la macha allah nag ñu leen di sant mooy fi ngeen teg seen tànk bu ngeen ko teggi fii la lépp lu am ci lu baax ci daara nga ko amee lépp lu waay di man ci lu ci daara nga ko ame ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay rafet na ñaar fukki weer ak ñaar ku ko toog ci place jàmbaar nga ñaar fukki weer ak ñaar ku ko toog ci place jàmbaar nga te moom ngeen ko amee kon euh, kàddu gi foofu lañ koy yemale rek ndax temps bi bëriwul wa axiru daawaana an alhamdulilahi alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu alquran yi ñi ni dañu ko jàng alquran waaye dafa di ñuy taw fee ñu am ci ñaar fukki bëri xanaa yaa toogu di ñëw waaye dama yaakaar ni tey Amadou daa am lu mu nambal li nga xamante ni mooy jataay bi wala ñu doon dongo yi gis naa sant bu teddul Sayyidina Muhammad bi bu tedd bi jox ko xale yi ngir ci way yéeme li nga xamante ni ñoo tagg Sayyidina Muhammad ku bëgg Moustapha xoolal xale yi ku bëgg Moustapha rek mbaa nga bëgg yàlla waaye xoolal fële ca gannaaw xool xale yi ñëw.

xale yi dugg si. koo xamante ni rek ñëw nga ci jataay bi nga si ñu xool xale yi nga xamante ni ñoo mokk alquran xale yi nga xamante ni ñoom la seeni way di mu ñëw ñaar fukki weer ak ñett ngir lan tey téere yàlla bi ñu def ko yi xale yaa ngi nii di ñëw ñeenteeli xale yi mokkal euh, yu mokkale ci Mawlad al imam. ñii di dugg si ñooy xale yi mokkal ren promo bi ku gis nii ñu selle nii ñu baaxee. mel ni alquran seen mbokk yi fu kaamil yi tax ci seen i ni kat li nga xamante ni mooy daara ji mokkal loolu téeméer ak juróom fukk ak ñeenti élève yi nga xamante ñoom ñoo mokkal ren bokk na ci Ahmad Sakir Diop bun Oustaz Aboubacry Diaw yaa ngi noonu ki nga xamante mooy Hasan bun Cheikh Assane Ngor bun Cheikhou Ngor Wafa Sine na ñi nga xamante ni ñoo ngi nii tey képp koo xamante ni koo xamante ni mooy juru dong rek boo yeboo bég Leyti Fall Yacine Seck Serigne Mbacke Mbeng Fat Fallou Seck Awa Seck Cheikh Modou Ndiaye Balla Ndiaye Baye Hassan Abdoulahi Diop Babacar Diakhaté ñooñu ñëpp la seeni way jur fekk Awa Thiaw Mamour Gueye Serigne Modou Thiaw Mouhamad Dem Mali Ngom Khadijatou Diaw Mame Cheikh Gueye Mouhamad Faye Khady Gueye Babacar Mbaye Mor Gueye Ahmed Gueye Awolo Babacar Faye ñoom ñoo ñëpp mokkal nañ alquran karim seen i way jura toog nii yàlla yàlla fay ci barke Seydina Muhammad alquran kitaabullah wala jumlul quran moom kitaabullah man ngeen a toog déglu xale yi tuuti yàlla yàlla fay leen ولي attention, comme les scientifiques modernes n'ont émis l'hypothèse du Big Bang que durant ces dernières décennies, qui pouvait savoir au 7 en Arabie que les empreintes digitales sont absolument uniques à chaque individu. Alors, alors que nous découvert, ça là récemment, en utilisant la technologie moderne et les équipements scientifiques modernes. L'unique réponse à cette question, l'unique réponse à cette question est ce qui suit. Le Coran est la parole de Dieu. Le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. est celui qui embrasse toutes choses par sa connaissance. L'être humain, l'être humain est sans divin, révélé par Dieu et recevoir avec le cœur ouvert, comme seul et unique Suivez le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde. bu tax bi moom day mi ngi démpaale ca fa nga mooy daara yi daara ji yàlla defal nañu taw féeku jëggaane wuñu dara le bii mi ngi démpaale ci daara ji te bu yéeme ñetti at bu mokkal moom Baye Souleymane Sène parce que ma ne taxaw Baye Souleymane yàlla yàlla sàmm la ci barke Seydina Muhammad moo wax ni kii nga xamante ni moo leen jiite tey jii mi ngi def premier bii la jàngal Quran mokkali bi tey jii mi ngi ci 18 ans mi ngi def premier yàlla na yàlla barkeel ko ci barke Seydina Muhammad waaye maa ngi gis xale yi ñu ngi wëngeelu xale yaa ngi ci waaye képp koo xamante ni ñëwoon nga foto yàlla yàlla fay la واحد واحد Baye Assane ak Hadj Malick ñoom ñoo taxaw li nga xamante ni ñooy xale yi ko jàppale ki nga xamante ni Baye Assane lépp annonce bu ngeen dégg muy jàll ñoo koy def te ñoom ñëpp dañu ngi ci daara ji loolu ñoo koy ñaan yàlla te nga xamante ni mooy suñu wëy lu rek yaa xaaj ma tigloo yaa ngi yàlla doon ay yar barke Seydina Muhammad am na ndam am na teranga ana beneen bi beneen bi beneen loolu mooy li nga xamante ne Quran xale yaa ngi woon yow rek sànq wax naa ni bind leen benn tur muy Seydina Muhammad ñu bindal Ahmad xale bi yee baal te yaakaar ni xale yi xanaa naw ñu def la nga xamante min ismihi li yujillahu fadl arshi mahmudun wa hada Muhammad bingo xale yaa yaa ngay béccante maa ngi gis xale yi kenn ku ci nekk yaa ngi topp sa ku ci nekk di wër rek daa mel xale yaa ngi commencé nag ay sappe nag sappe yi nga xamante ni may jur moom nag lu mu leen wax ni ngeen bàyyi xel xale yi xool leen bu baax daa xale yi su daa am lu ñu nar xale yi daa mel ni day su ma juum ñu ngi weccante parce que ay rab la maa ngi gis ñuy féete nii ñuy féete nii ku déglu xale lan lañ nar a def. اعتدال واحد اثنين ثلاثة اعتدال واحد اثنين ثلاثة إلى الأمام آخر يسمى لنسل مقني باتكو waaye bu ma juumul xale yi lii di def daa mel ne ñëw tur tur bi nga xamante ni 不要了。xale yi daa ni turu yàlla bi tudd al ahad ni moom la xale yi nar a a bind ni turu yàlla na ñu a bind li ma yëg ci daal mooy li oustaz bi faral di wax ni xale yi dañoo bëgg ñu saf saf yàlla daa mel lañ nar a def yi daal ñu ngi di waaye su ma duumul daa mel yàlla bi. benn yoon la ñu def alquran ca qul huwa allahu ahad al ahad al ahad xëy daa mel loolu bind su ma juumul la de alif la daa ni laa ma ci topp ni bi alif la ku juumul li xaalonq la daa ni del gaa nekk ne ca tet su ma juumul xëy lañ def ndax mbaxane yi ñoom ñoo ko solo ñoo ko summi teg ko fii xale daa mel dañoo am lu ñu naan waaye yal na yàlla fay seeni seeni ñi wax naa sant ni xale yi bindoon nañu tur yonent yàlla Muhammad ko tagg yu rëy muy Ahmad te yaakaar naa Ahmad moom ahad rek la mën a àndal pour nga am ismu zaat muy Allahu ahad ak Ahmad rek lay doon ahad ak ahad ak ahmad rek ngay boole pour am ismu zaat ahad ak ahmad bàyyi taala ja ahad ak ahmad rek kay ànd nga am ismu zaat yaa ngi daaneel yow ngay romb seen wëri dunya xale yaa ngi dem ma xanaa waaye gisaguma ah dañ leen seetaan ahad ak ahmad ñoo ngi ñaanal yàlla ki nga xamante ni ñëpp ñoo si ci jataay bi te dara taxul lu bëgg alquran màggal ko yàlla yàlla defal leen ñoo ngi ñaanal yàlla képp koo xamante ni ci daara nga ne tàmbalee ko ci seen oustaz ko ci ñi jàngale français anglais informatique taekwondo lépp nga am ci daara ji te neexul ba neexul waaye dong ngay daara yi ñoo koy jàngal daara ji ñun daal jëkkee ne suñ dara yàlla yàlla gën a taal daara ci barke Seydina Muhammad yàlla yàlla doon leeri daara te sàmm leen waaye li ma teel a amoon yoon dëgg bu ñu seen baax ay may ragal est ce que lu a reçoit tudd coono yeeg yal na yàlla barkeel leen daala ñëpp bëgg lépp waaye doole matewu ko ati mu yaa fusi ko min xayrin tajiduhu inda Allah ñi mokkal alquran ñi ñu ngi nii ñoom ñoo nekk promo bi kat doon ko sos 2007 tey jii 2021. muy Serigne Khalifa am ngeen ndam yal na loolu seen sutura ba ngeen yëg ni seen ndam yaa ngi feeñ yoon ci yàlla Mouhamad a taal taalam a leer mu ñu fay leeru Seydina Mouhamad. wala yu fay xale yi. ñu ngi ziar képp koo xamante ni mu toppee day di béy. waaye mu nga daan wax efficace bi bu dee dëgg maanaam. xale yi fa tabaarakallah. gannaaw te daa mel ne yow wax ni wa inna jundanaa lahumul am na ko xale yaa ngi ñëw waajurum Qur'an. ñoo ngi mi ngi nii jiital xale yi nga xam ne ñoo jurum Qur'an. donc ay résultats yoo xamante ni wax naa ni promo bii toog tey jii. ñooy ñi nga xamante ni ñoo yóbbu daara yi ca Kambia téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoom ñoo ko ci yóbbu waaye ñii nga xamante ni mooy 2007 xale yi doon def CFEE nga xamante ni mooy premier promo bi dinaa leen ci woon ay xale ci kanam tuuti. waaw waaw xale yi Mbacke Gueye la ngi ji ñi nga xamante ni mooy. Baye la ngi ji ñi nga xamante ni mooy. Moussa yi di mi ngi ji ñeneen xale yi ngi ji ñoom 100 pour cent la ñu amoon ci 2017 bi nga xamante ne noonu la seen CFEE Daniel. ñi ngi wax ni 2017 ñi ngi am CFE 100 pour cent 2018 100 pour cent 2020 100 pour cent 2019 100 pour cent 2020 100 pour cent 2020 même BFM ñoo ko am pour cent 2020 bac 100 pour cent maa ngi wax sànq ni xale yi nekkoon ci daara ba demee fi bac ñoom ñëpp ci tawfiqul ilaahi ñoo nga nekk te génn te tamit université bi jàng su ñëwee Oustaz Babou Ndiaye comme taxawaay nga xamante ni ma nga bàyyi ko ko mu ñett ñaar fukki weer ak ñett mu ànd ko mbokkal yi Oustaz ma yi Diop Oustaz Moustapha Diaw Oustaz euh, Mor Diop Oustaz Ahmad Sakhir Seck Oustaz Moukhtar Diop Oustaz Mame Cheikh Mbaye Oustaz Mor Khali Diop ñoom ñëpp ñu bàyyi ñëpp ngir xale yi ñu mokkal alquran boo ba léegi ñu biwuñu jëloon ñu vacances lépp toog ngir lan xale yi dañu ko Alxuraan waaye yaakaar naa ne am ngeen tamit avantage parce que xale yaa ngi nii toog soo seet mu war a mu war a seet mu war a wécc këyit mi nga xamante ni ma am nañ ci seen biir dënn yow yaa ngi ci xale yi daa mel ni dama la wax moom la xale yi commencé bi lii taxaw ñu xool wax na sax ñaari tur beeg mooy pour am ahad ak ahmad xale bi daanaka dañoo tagg ahmad fi ne nii toll ñu ngi a ahad wax naa ahad ak ahmad moo lay jox tur yàlla bu dee muy allahu xale yi su ma jum dañu ko la bind ahad al ahad yaakaar naa ko yaakaar naa al ahad al ahad xale yi ngi jëm ci bin ma gis tey bu ma juum loolu lañ nar a yi ma gis xool leen sàppe yi way jur yi xool leen yi way jur yi xool leen sàppe yi daa mel ni bii alif daa mel ni xaar ngaa nekk nii su ma juumul waaw kay ñu mujj ñaagee di bind daal gi muy al ahad bay su lay aa واحد اثنين ثلاثة خلايا نقول جلاب من كوباتيا واحد اثنين ثلاثة يلا ما نوغي رامبلاسا وات كوباتيا تي سن دم نوغي بن على حد خلايا نغي ولبتيكو يلا يا دفلن مك يلا بو نيل تي بارك سيدنا محمد mi ngoog daara jàngoog xale yi tagg nañ li nga xamante ni mooy Seydina Muhammad fasal nañ tur bi nga xamante ni mooy tur yàlla ba ba pare naan wa inna jundana lahumul ghalibun waaye xale yi yàlla def leen am ci barke Seydina Muhammad yàlla fay seen sëriñi daara oustaz Mourtada Dia ñoo ngi koy ñaanal yàlla moom mi nga xamante ni moo jiite ñi nga xamante ni ñooy jàng ñoo ngi koy ñaanal yàlla oustaz Adama Niang ñoo ngi koy ñaanal yàlla oustaz Ahmadou Moukhtar Diop ñoo ngi koy ñaanal yàlla ñooñu ñi nga xamante ni ñoo ñuy jàngal li nga xamante ni mooy arab bu fekkente ni français bi maître yi ñooy góor mag fay enseignant élémentaire Omar maître Omar Wan prof français SVT histoire géo ki nga xamante ni mooy maître Souleymane Diop prof français anglais ki nga xamante ni mooy maître Bassirou Diop prof math PC maître Abdoulaye Ndiaye prof math anglais informatique EPS madame Diagne enseignante élémentaire ñii ñooñu nga xamante ni ñoo ngi jàngal xale yi ci biir daara ji di leen fekk si biir ci biir daara ji di ñëw di leen ñu tax a ñëw internet waaye lépp lu ñuy jàng ci biti ñoom ñoo ngi koy jàng ci biir yàlla def leen mag ci barke Sayyidina Muhammad leen ci barke Seydina Muhammad waaye lii yëpp bu amee yàlla daaray kokki ndax farañ taale hmm, maa ngi koy wax sànq ni neexul ba neexul waaye bu fekkoon tey du seen taalu wax suñu taal bi du tàkk bay mel ni docteur Muxtaar Lo ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla doon na suturaal oustaz Ahmad Diop ñoo ngi koy ñaanal yàlla oustaz Abdul Qadir ñoo ngi ñaan ñaanal yàlla Baye Cheikh Mansour Gueye bu Thiès ñoo ngi koy ñaanal yàlla waaye sànq am na kóor si ci jataay bi di xaritu suñu Serigne Serigne Khalifa àndoon ak moom ca keer nga xamante ni mooy góor gu tedd gi di Hadji Mayoro Sall ñoo ngi koy ñaanal yàlla ci barke Seydina Mouhamad yàlla yàlla doole ay